saa yi bu ñu waxee élection suba la ñu daal di yëngalaat dossier bi dossier Macky Sall toog na fii douze ans douze depuis douze ans mënul vider dossier bi ba may wut mairie de Dakar damaa gën a sous al Almadies déposé suma dossier rek rajo bi ne ay eh, Barthélémy Dias dossier xaw ma lan fusillade tey ñu ne Khalifa Sall mooy candidat man duma candidat mais dinaa leen wax nag lu tax lii yëpp am te man du ma juum man politique ku ma bëgg a wër ndomb tu te réveilleras le matin de bonne parce que man dama namp politique dañ ma yar ci politique ma xam politique man député la Khalifa Sall candidat la heure bu may wax ak yéen man pare naa pare naa Khalifa Sall ba pare man signé na naa man signé naa pour Khalifa Sall parrainage parlementaire ñun ñuy 14 députés Khalifa Sall ci parrainage parlementaire boobu mu soxla ci treize députés man mii su cour suprême taxawee ne lu cour d'appel wax moo am Barthélémy Dias amatuma benn voie de recours à moins qu'il un changement de régime dans ce pays et incha allah dina am te su amee tamit am naa yaakaar que ce procès revisité wante balaa ñuy egg ci loolu ma bëggoon nag foofu laa bëgg presse bi bàyyi xel ci lu may wax. affaire bi du waxu Barthélémy Diaz man nekkuma élection présidentielle candidat te mairie de Dakar même su cour suprême confirmé lu waa cour d'appel wax man je ne bouge de la mairie de Dakar lenn mooy am mooy ministre la justice au passage ma koy jaajëfee di suma tant di maître Aïssata Tall sal di ko jaajëfee bu baax a baax parce que ci dossier bi bañ may njëkk a àtte première instance moom bokkoon na ci suma avocat yi te mosuma ko fay dërëm. kon nag ku la defal lu baax na ko ne jërëjëf tey ma ki Macky jaajëfee parce que tey yàlla teg na ko moom mooy ministre de la justice kon nag ñu ngi koy encouragé il faut que moom mu bind président assemblée nationale ne ko am na député bu ñuy woowee Barthélémy Diaz bu nekk ci assemblée bi dañ ko condamné définitivement dañu bëggoon ngeen retirer ko son poste de député ma ma bëggoon nag wax ci leer du ma fa egg ak ñoom. parce que man xeebuma benn poste wante gëm naa ne man passé naa député moom laa gëm te ma leen di ko wax ñoom parce que waxoon naa leen ko bañ may bëgg a àttee nekk gu moon maire de Dakar ñu may bëgg a toroxal euh, tribunal ma ne leen tey ñoo naa tribunal wante dinaa fi dellu siwaat comme maire de Dakar te noonu la mbir bi demee su leen neexee nag ñu jëlaat seen poste député wante nañ ko déggee noonu je reviendrai à l'Assemblée nationale incha allah comme président de l'Assemblée nationale yàggatul te du ma waxantu leen leen neex du ngeen yàlla vous n'êtes pas des envoyés de Dieu et vous n'avez une maîtrise sur le destin de personne lu tax may wax lu mu leen di wax ni yéen gis ngeen ay élections yàggul ngeen gis ay mandater ay mandater ñu leen di jënd di jël seen signature di ko foye ñoom fu mu nekk nii lu ñu mën a def pour rocc ci benn député wala ñaar député dañ ko def teg ci fii yàlla rek a xam luy xew suba lu tax ma leen di wax lu ma leen di wax nii parce que calendrier bi ni mu tëddee calendrier bi ni mu tëddee mooy ñoom le 22 décembre lu ñu woote. ñoo xam est-ce que le 22 décembre la ñuy vider ou pas parce que mën nañ àtte le 22 décembre def ko délibéré pour début janvier mais du 11 au 26 décembre mooy dépôt des parrainages au conseil constitutionnel mooy du 11 au 26 décembre du 27 décembre au 28 décembre mooy tirage au sort pour définir mooy ordre traitement au dossier parrainage yi mooy juróom-ñaari sages yi ñoom ñoo koy traité wante bu ci ëpp solo dañu ne du 27 décembre au 12 janvier la ñuy gestu xool parrainage yi ban mooy baax ak ban moo baaxul parenage la ñu wax waxuñu parrainage citoyen waxuñu parrainage parlementaire waxuñu parrainage élu dañu ne parrainage kese ñoom ñoo koy gestu waa maintenant yéen cour suprême su waxee lu cour d'appel def baax na ñoom dañ koy confirmer xam ngeen Barthélémy Dias nekkatul député kon Barthélémy Dias su nekkutulee député lu mu pare lu mu pare na woon Khalifa Sall baaxutul mais c'est que assemblée nationale du nekkati en session pour mën a installer suma suppléant xaw ma est que xam ngeen fu may waxee am déet parce que man ba may tout tànk dafa doon ping pong ma bëggoon lool ping pong wante man kenn du ma ping pong man damay ping pong mais duñu ma ping pong moo tax ma ne gaañi euh, fu ñu jëm. ñun nañu góorgóorlu ba gën a diwoo diwlin parce que dañuy fooye ñoom seen xel lu tax ma leen di wax lu ma leen di wax nii Khalifa Sall bañ koy galgal xalifa Sall dafa bokkoon ci fichier électoral en bonne et due forme turam nekkoon ci Khalifa Sall bañ koy galgal dafa déposé woon ay parrainage am lépp mët man maa àndoon ak dem si yàlla sa Diallo ak ñoom Babacar Coy ba ñu dem déposé conseil constitutionnel jël suñu ay parrainage lépp baax xalifa Sall bañ koy galgal amuloon à l'époque lu am tey mooy jamono Khalifa Sall dañu waxoon le rabat d'arrêt il est suspensif tey ñoom changé nañ loi bi waaye yow ku nga xam ne daf la jaay doole teg ci maa tey nga nekk ci fichier am sa ay parrainage déposé yow rabat d'arrêt et suspensif moom mu jóg nekk nga yow yow mi yow bokkoo kooku su amee sañ-sañu def loolu asamaan lu may wax nii parce que lu may wax nii mooy du 27 décembre au 12 janvier actuellement assemblée nationale nekkul session ordinaire assemblée actuellement mi ngi ci session extraordinaire parce que day examiner ay projet de loi ça veut dire que assemblée balaa le 31 décembre au plus tard balaa le 5 janvier assemblée tëj na ay buntam c'est fini kon assemblée même su amee député bu muy démis de ses fonctions assemblée ne va plus se réunir pour am benn suppléant bi mën a dugg te man ku mën a remplacer mooy suma rakk di suma doomu ndey di nit ku baax nit ku wër muy Pape Madiop Diop di meeru Grand mais ñoom nañ ma wax boobaa suñu ma daanee na ma lu cour d'appel wax ñoom moom la ñuy dëggal waaw maintenant naka la Pape Madiop Diop di duggee assemblée pour man ma remplacer ci parrainage bi moo tax ma bëggoon leen ñaax ñu gën a xoolaat seen taxawaay parce que man dama diwoo diwlin kenn du dem di ma yóbbaale kooku moom du am moo tax kenn du ma dégg ma tudd ay magistrat du man ak ñoom man xam naa ñu may xeexal wante damay biiralaat lu ma wax damay ñaawlu doxalin bi parce que nga am douze ans pour vider dossier bi yow saay bu ñu waxee suba mooy élection rek nga indiwaat dossier bi mais yow ça mais franchement jusqu'à quand quoi parce que à un moment donné il faut qu'on apprenne à se respecter te ñoom nee nañu à partir nee nañu à partir du 12 janvier dañuy commencer di gestu di xool pièce u dossier yan ci baax ak yan ci baaxul nga xam na ni amatoo benn possibilité pour rectifier donc loolu dañ koy wax pour leeral askan wi ñu xam ne ni que fu ñu ñii di waxee ak lu xew dëgg-dëgg ça n'a rien à moo tax may sàkku ci presse bi il faut vous départir de l'émotion, la sensation. Soyez objectif sur les faits. Barthélémy Diaz député pas député ça c'est le cadet de mes soucis moi je vis pas euh, beaucoup moins sur les tiroirs je n'ai jamais touché mon salaire de député il tombe dans mon compte je le redistribue yàlla suturaal na ma donc député ou pas député euh, man soxlu passeport diplomatique ñëpp ma xam maa ngi sant yàlla donc lu nekk ci ginnaaw lii maa ngi ñaan yàlla rek yàlla naa juum wante ñoom xam nañ te xam naa ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm tamit mbokk yi jërë ngeen